ñu ngi leen di nuyu ci Liberté mboolem délégation bu ànd ak maa ngi nuyu tamit Benno Bokk Yaakaar bu si baax ci Cap Liberté teew fii nekk si ginnaaw futur maire madame Zahra Iyane Thiam Diop responsable bu nekk Liberté 6 di teg nuyoo ci loxo suñu yaay Mame Binta Cissé moom mi yore comité électoral bu Liberté 6 ko teg ci loxo Cheikh Sakhanoxo mais également ñëw nañ fortement di ko teg ci loxo seen responsable Maodo Malick kaddu yu du gudd kaddu dalal jàmm la di dalal suñu futur maire de la ville de Dakar di leen wax ne rek waa Liberté 6 suñu yaakaar yaa ngi nii toog muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf lu tax ñu yaakaar ko daf ñoo dikk te lim ñu dikk gëm nañ ne buñ ko tegee mairie Dakar incha bépp Dakar waa di nga ne yow Dakar nga dëkk te Dakar amal na la njëriñ kon nag nañu moytu naxaate bi Dakar dañoo yàgg nax dañ ñoo yàgg a fowee ku jóg utiliser mairie Dakar di ko def sa xeexu bopp te kii nag gis nañ ko bañ ko dalee dënk depuis mu ñu commencé ko nommé DG ba ministère de la santé gis nañ ne dara ñoru ko lu dul askan wi kon ku mel noonu buñ ko amee Dakar lan la ñuy waxati kon Dakar maa ngi leen di ñaan rawatina si Cap Liberté nañu xam li ñu bëgg xam suñu njëriñ suñu njëriñ a ngi nii monsieur Abdoulaye Diouf Sarr Zahra yow nag wax si yaw moom koy dox Sicap Liberté bi kenn du fi gis dara ku dul yow Sicap Liberté bi Zahra Iyane Kane 100 pour cent la fi am te Liberté 6 loolu moo ciy jiitu donc nag kàddu yi maa ngi koy yemale di leen jox rendez-vous le 25 janvier incha allah dañuy jubilé Liberté 6 Sicap ba Dakar incha Mayel mu yóbbaale ñëpp géew yi. dañuy wax may koo yéene jaay ku am njëg waaye dénkaan koo wóolu booy may koo yéene ngay may booy jaay ku am njëg ngay jaay waaye booy dénkaan koo wóolu ngay dénkaan Ablaye Diouf yaag Zahra yéen lañu ñu wóolu yéen lañu ñu dénk yéen lañu yéene yéen lañ ko jox Liberté 6 bii liberté 5 bii Sicap bii man ak Zahra yëpp fii lañ juddoo fii lañ yoroo fii lañu màggee kenn musul gis ma am taxawaay bii déedéet waaye Zahra lii mu am ci liberté 6 76 ba tey yombul nga am ko fi yombul ku ko fi am ndax lan nit ñi li ma lay wax li gër gor gën a bëgg boo seetloo sàcc moom la gën a bañ gor li mu gën a bëgg mooy ku ko yëg sàcc li mu gën a bañ mooy ku ko yëg Zahra yaa ngi financé jigéen ñi Zahra yaa ngi financé xale yi lu jiitu ngay nekk maire mboolem a imma yu nekk liberté 1 ba liberté 6 yaa leen di jox xaru tabaski yaa ngi ci jàkk yi yaa ngi ci jumaa yi yaa ngi ci bàjjenu gox yi yaa ngi ci mbooloo mi moo tax ñëpp nekkal la tey ñaan yàlla ndam lii yàlla nañu ko yàlla may ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ablaye Diouf Sarr tey ji nii rek ci jumaa ji jàngal nañ la kaamil ñaanal la yàlla sa baay imam Mawlud Sow di jiite jumaa ji depuis 46 ans sa baay baay Ahmed di délégué de quartier bi ak mbooloo mi yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw di la ñaanal yàlla fii daal mokk na li ñuy wax euh, Zahra baax nga lool waaye loo baax baax baax baax ña la jiitalal gën a baax fuuf sa càmmi ji nekk fii ñoom Cheikh Saxanoxo ñoom Habib bii photographe ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp waaye sa yaay yu baax yii maam Binta Cissé sa yaay yu baax yii ñoom soxna Fatimatu Binta Getloo subaak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi muyee la mayo xam nañ ni élection yii dara du ko gañe lu dul proximité waaye ak ngoon guddi ak bëccëg ñu ngay ànd di porte à di ñaan suñu borom ndam li yàlla nañ ko yàlla defal incha taala li fi ne leer na dama bëgg kenn ku ne kenn ku ne ci yéen kenn ku ne na indi kenn rek mu voté kenn ku ne na indi kenn kenn ku ne bu indee benn nit ñu sul les élections yal na yàlla barkeel li ci des yàlla yàlla dimbali ñu yàlla defal ñu ndam allah dañuy toog fii ba suba waaye dafa am loo xam ne daf ma ñor loolu tey loolu laa leen bëgg seedeel moo tax jotaay bii mënul woon a ñàkk ndax bëri na ñu naan élection yi liñ ci soxla proximité la élection yi liñ ci soxla def porte la fekk nit ñi seen biir kër yi wax ak ñoom waaye day am ci ay waxtu loo xam ne du mën a ñàkk te bii mënul woon a ñàkk ndax kilifa yu tedd yi fi jël kàddu laata ma koy jël dañu wax lu am solo nee nañ dénk ko wóolu te ñun kenn lañu wóolu kenn kooku ñu wóolu nag dama dugg ci kër yu bari ñu ne ma le ab lay Diouf saar na nga xam ne liggéey ak e vote bi nga xam ne dinañ la ko defal dinañ ko ko defal waaye bëgg nañ ko gis Monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr candidat maire de la ville de Dakar ñëw bi nga ñëw tey ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm ndax sa agenda mayu la ko woon dang ñu ci xajal ndax bi ma la ne waa Sicap nee na namm nañ la bëgg nañ la xool da nga bàyyi lépp ñëw kon waa Sicap xool leen ko ndax bu ngeen koy xoolaat dama bëgg ngeen gis ko ville de ma koy nuyu moom ak délégation wam monsieur le ministre yéen ñii laay waxal xam ngeen lu tax ñu wóolu Ablaye Diouf Sarr gis nga dañu état bi dafa am yoo xam ne daf ko jëmale ci njaboot gi moo xam ci wàllu wér-gi-yaram la moo xam ci wàllu jàng bi la moo xam ci wàllu dëkkuwaay yi la loolu lépp mu ne lépp lu ma ciy jëf jëmale ko ci askan bi dama koy jaare ci li ñuy wax ay gox-goxaat dama koy jaarale ci commune wala ma jaarale ko ci département kon comme boobu nga xam ne état bi mi ngi koy jël jagleel ko njaboot ña ñuy dénk groupe barab yooyu foog ñu xam leen booy tànn sa maire da ngay xam ban maire ngay tànn ndax lépp looy soxla moo xam xale yi dem jàngi école moo xam xale yi bëgg faju foofu ngay dem te yéen nag foog naa ne mosu leen gis seen maire xam ngeen maire bi xam nga xamu leen maire bi xamu luy dox ci maire bi xamu leen bu tabaski jote lan la ñuy joxe bu korite joxte lan la ñuy joxe tali yaa ngi nii buñ fi jaare suñu dàll yëpp ay yàqu yii mu xoosu boo bëggee dem julli ji fajar foog nga waajaat ko ndax boo génnee doo xam lu lay fekk ci yoon bi lamp yi leerul waa loolu yëpp nga xam ne mairie bi da ko war a def te defu ko am na nag ay at ci ginnaaw am na as tuut lu ñu gis ndax kër yi fu ñu dugg ñu ne ñu dañu bëgg pavage am na as tuut loo xam ne commencé woon nañ ko def ci ay pavage mais loolu ma nga jóge woon ci ville de Dakar kon tey askan bi yëpp a war a xam te warul yem commune Sicap Liberté rek 19 communes de Dakar yëpp ñoo war a xam ne képp ku jàppali Diouf Sarr sa bopp nga jàppal ndax su commune bi mënee benn ville de mën na fukk kon nag nañu xam ne voté ville de Dakar jàppale suñu bopp la jàppale suñuy njaboot la ndax boo seetloo ville de Dakar budget mi ngi toll ci juróom fukki milliards juróom fukki milliards ay at fukki at ak ñaar ay nit yore ko toll na rek gën caa néew ci téeméeri milliard ci juróom-benn téeméeri milliard wan ma ban commune ngay dugg gis fa lu tolloog milliard luñ fa tabax amul. kon bu ñuy dénk dañuy dénk ku ñu wóolu ndax la monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr da wax lu am solo te lu am solo loolu nga wax moo tax ñu ànd ak yow te dinañu xar suñu tànk tubéy pour fal la ndax buñ la falee du yow lañ ko defal suñuy njaboot lañ ko defal. képp ku fal la ministre Abdoulaye Diouf Sarr sa bopp nga ko sa doom nga ko sa yaay nga ko sa papa nga ko defal ndax Abdoulaye Diouf dafa ñëw ne bu ñuy jox mairie ville de juróom fukki milliards danaa ko yóbbu téeméeri milliards boo ko yóbboo téeméeri milliards ci njaboot bi nga ko fas yéene def ci environnement bi nga ko fas def ci secteur privé bi nga ko fas yéene def mais surtout ci jigéen ñi ak le secteur informel marchand ambulant yi artisan yi ouvrier yi ci xëyu ndaw ñi la ko fas yéene def kon population de Sicap ñëwu ministre Ablaye Diouf Sarr bi dafa am solo bu ñu fi jógee lu ñu def benn pour suñu mairie Sicap bi nañ ci def fukk pour le ministre Ablaye Diouf Sarr te ñun ñëpp kenn ku nekk am na mbokk Pikine fële Colobane kenn ku nekk am na mbokk Fass kenn ku nekk am na mbokk Patte kenn ku nekk am na mbokk Grand Yoff nañu sot sot bi affaire bi dañ koy songu sot ko daan ko jox la ministre Abdoulaye Diouf Sarr beneen bi may daanalee ndax tey li tax ñu indi ko dañuy bàyyi mu wax programme ñun suñu candidat dañuy sawar ci muy dajeek ay mbooloo ndax dafa am programme bokkul ak ñi nga xam ne ñi ngi wër di tambaambaalu suba ngoon guddeeg bëccëg defuñu fi leen kon moom dañ koy bàyyi mu wax programme am mais dama bëgg ngeen seet lu dara ndax dafa am nit ñu tedd ñoo xam ne duñu dugg ci ay caaxaan lu ñu dugg rek dañ ko seet seetantal ko ku mel ni Chérif Mamine Aïdara bu nangoo ànd ak ñun wóoluñu wóolu la coalition Benno Bokk Yaakaar dama ne bum ñu gën a gore ndax la muy am am na ko ba pare bu ko neexoon toog moo doyee aadi waat dañu nii jiite makku jumaa ji ci liberte 5 ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñoom dañu taxaw suñu wet nangu fës te li tax ñi def loolu mooy ñoom fii la ñu dëkk dañu dëkk ci dëkk bi seeniy doom dëkk ci dëkk bi seeni njaboot dëkk ci dëkk bi bu ñu ne leen fu ngeen jëm dañ naan demuñu fenn fu dul des ci dëkk bi dëkk bi mooy liberté dëkk bi mooy ndakaaru kon lii ndakaaroo leen kon nag bu ñu bu ñu nangu bu ñu nangu suñu ndakaaru bii loxo yoo xam ne xamuñu ko te jàpp naa ne xameewu leen ñu caaxaan xameewu leen ñu caaxaan kon nag au soir du 23 janvier ñaari scrutin yi nga xam ne moom moo am dañuy voté benn Sicap Liberté voté benn Patte d'Oie voté benn Grand Yoff voté benn Point E ba 19 yëpp mat bi si des ñu def ko ville de Dakar jël suñu candidat le ministre Abdoulaye Diouf Sarr fal ko te li ma wax rek fal ko du fal ko moom mais fal suñuy njaboot la fal suñu xoy ci kaw ñu Benno Bokk Yaakaar fal Diouf Sarr mu jàmm soxlay Dakar Diouf Sarr Thank you.